Ah, jërëjëfati mbokk yi seetaan déglu xam ngeen ne lii bokk na lu askan wi di jàmmat moo tax seen cabinet bio rahma indi la ci saafara bi indi la savon moringa 100 pour cent bio savon moringa saabu la boo xam ni daanaka lépp lu mu fekk lu ne muy ay acné ak yeneen yu ni mel daf koy dindi ba mu set kon yow mi seetaan déglu te dañu bàyyi xel yëf yaa ngoog mën nga ko am pot bee ngi jar 3000 francs nga daal di ko mën a am ci yenn tund yi nga xam ne seen cabinet bio rahma moo nga fa soo demee Saint-Louis boo demee Mboro boo demee Louga boo demee Thiès boo demee Mbour boo demee Refane boo demee Diourbel boo demee Touba Casamance Gambie ba Mauritanie lii askan daf koy dund seen cabinet ma indil la saafara gi ni mel kon wooteel ci numéro bi 77 244 90 05 il faut mën a nekk rek incha allah di nga daal di mën a am ci saabu moringa muy saabu boo xam ni dafay xeex di dindi lépp lu jëm ci wàllu picc ak acné wala eczéma wala psoriasis wala lu jëm ci wàllu xam kon yow mi seetaan te dañu déglu te dañu bàyyi xel xam ngeen ne cabinet rax ma muy cabinet goo xam ni moo ngi tëngee Sonacos di wetu pharmacie di cabinet goo xam ni daanaka rek solo bi mooy nan la ñu mën a def bëggu nge nit ki ngir ter wi gën a mën a doon der woo xam ni du am lenn lu ko gàllankoor yaa ngi am ay picc ci kanam mu jaaxal la lool yaa ngi am ay picc ci kanam saa boo ko gratter mu ñu lool wala yaa ngi am ay picc kanam mu def ay taches yu yéeme yu doy waar bàyyi lépp loo jàppoon daal di woote ci numéro bi ngay seen di 77 244 80 05 nga daal di nànk ñëw jënd fii nga xam ne moom moo di savon moringa muy 3000 saabu boo xam ni daanaka saa boo ko sangoo di nga ci yëg sa bopp ak biorahma léppay woote